77 633 77 56 ci ñi bëgg bind seeni doom wala ñu bëgg ay leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas leen yéene andil ma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul mu bàyyi ko ca euh, njàngale mu am solo moom mu daan jaarale ci ay tomb ak rëdd ki misaal di ci jàngale yàlla ak diine di ci jàngale adduna Serigne Touba jamono euh, bi mu nekkee Mbakke Kajoor. Euh, ña njëkk a tërbiyewu ci moom nga xam ne tërbiye gu tar gu métti lañ doon def am na bis ñu liggéey ba wàcc mu woo leen ne leen ñëw leen ma yee leen dama bëgg ngeen xam ne lislaam ñett yi rek la muy waajib ak man duub ak mu baax waajib mooy lu war man duub mooy lu nu sopp mu baax mooy lu dagan dal na yenn xam ngeen luy seen waajiba ñu ne ko déerit mu ne wàcc lal yi te dem ci der yi ndax ab tërë nga ci kanam de boo xam ne nii ku ci àgg da nga tëdd loo bëgg tëdd tëdd loo bëggut tëdd te loolu moom mooy bàmmeel kon nag wàññandiku leen tër yi te jaamu ji yàlla xam ngeen luy seen man dóob ñu ne ko déedéet mu ne ndamu bañ ne démb la woon bis penc xam ngeen luy seen mu baax ñu ne ko déedéet mu ne dara dara dara daal ne dara njëkk ji mooy àdduna mi ku xam ci moom dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi des àllaaxira me ku xam ci moom dara doo ko defal dara ba naw ko ngir dara du fa doy yàlla mi ku xam ci moom dara doo ko moy ci dara ndax mooy borom qudratu ak iraadatu te bu yëkkatee yaram ba de kenn du ne ko déet jamono bi mu nekkee njaareem it wax nañ ne am na bis mu woote ba ñu bari wuy ko nee nañ jataay boobee sëriñ Mbay Saar ma nga ca woon bañ ñëwee sëriñ bi bind daldi tomb juróomi tomb def ab tomb ci digg bi def ab tomb ci kanam defu ab tomb ci gannaaw def tomb ci ndeyjoor def ab tomb ci càmmoñ daal di jël loxoom bu tedd ba teg ca tomb ba ca digg ba dal ne cem saa ngi nii cem si mooy nit ki daal ne lim bëgg lépp a ngi ci kanamam mooy tomb bi ci kanamam lim bañ lépp a ngi ci gannaawam mooy tomb bi ci gannaawam dal ne li ko yàlla digal mu ngi ci ndeyjooram li ko yàlla tere mi ngi ci càmmooyam dal ne anoon na muy def nag ba jot ci lim bëgg mucc ci lim ragal ñu ne ko buñ ko xamee jël mbàkke mun ne xanaa danaan coow ci tomb bi ci ndeyjooram te mooy li ko yàlla digal bu ca nekkee nekk cee ba mu yàgg suñ borom day daal di soññ tomb bi ci kanam te mooy lim gën a bëgg ne ko waaxul dajeeg sama jaam boobu mm, ndegam mi ngi ci li bëgg yow mi mu bëgg laa koy fayee nee na mucc ak tàmbalee ñëw mu daal di xaaji tomb bi ci gannaawam te mooy lim gën a bañ ne ko sama jaam boobu yi kat bu ko jegee mukk ndem sore na li ma bañ yow mi bañ bu ko jegee daal ne waaye safaan ba itam noonu saa bu jaam bi jógee jëm ci li yàlla bañ muy lim ko tere muy tomb bi ci càmmooyam nee na bu ca nekkee nekk ci ba yàgg sun borom tabaaraka wa taala day soññ tomb bi ci gannaawam te mooy lim gën a bañ ne ko waaxul jot sama jaam boobu ndem mi ngi ci li ma tere kat yow mi mu bañ laa koy fayee nee na musiba ak balaa tàmbalee ñëw mu daal di xàjji tomb ba ci kanamam te mooy li mu gën a bëgg ne ko sama jaam boobu kat bul dajeek moom mukk ndegam mi ngi ci li ma bañ nekkul ci li ma bëgg yow mi bëgg bul dajeek moom mukk daana waxit ne coow yu bari rek waaye mënul leen a fexe ba am li ngeen bëgg te jaarul leen ko ci li yàlla digle mënu leen a fexe ba mucc ci li ngeen ragal te jaaru ko ci wattandiku ay tereem kon loolu mooy njàngalem Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne ni mësuta soppeeku mësuta dañ te it fu mu toll itam daana ko laabiire bindeef yi kon nag nañu yeew bu baax te am xel te xam ne mucc ak njariñ mi ngi ci li yàlla digle euh, mucc ak xéewal mi ngi ci yàlla digle euh,